kenn mënul wax dem na police man man ma engagé la tax ma dévoilé lu tax man ma wax leen ko du dara. Mhm. parce que meurtre dafa am. Mhm. meurtre bi ñaaw te ñoom bu ñu doon jot xaalis du lii lañ jaanoo ci ci sama maam. Mhm. yaa may ma bu baax. voilà moo watam la Diop woo ko. ne ko dëkk temps laa nekk envoyé ko xa kii du mu tudd envoyé ko prévu woon ko lépp ci appel ak lii mu évidemment li nga wax ni kenn ci seex yi kenn mo jéem wax li ni li nga wax kon do dako accord moo ñu boucler affaire bi tek parce que dafa am benn nit mu ñu do moy aïssa jigen boobu sept personnes tan ñaari jigen cinq góor dof bele bokul mu lo ko ñu mujjee indi non non ko dañ ko mujjee boole. Hmm. ay sa ci temps du ma la wax ci deux semaines dañ ko japp sobe ya légui léegi kan mooy Aïcha gars yi bu ma kenn dulloo maa leen gën a man li tax ma tek bacci séras xaw ma ne wona sax ki day tuddu Bathie Seras man li tax matek teg Seras dama ko rom attaquer parce que dafa commencer génn di out buzz rakam bi di bandi bandilu nan ay kulal laal doomu Bathie Seras lolo tax matek fi bac pour wax ak mom ki li muy wax moko ko xam mom la concerné man waxuma mom mo nek di wax deglu len ko mom lu leer lay wax voilà. bay ñi di wax sax ñoo ñi di wax man lama ne wax deglu amul kenn ku am numéro. Euh, police amul kenn ku am fi du wax lii nu man la pare leer dafa jaar ci man. Hmm. yaa ngi dëgg bu tese bi amee ba pare ay sanda bu ci la ñuy woote bu ñu wooyee ña xamal ne sa kër pour leer moom boobu noonu xam moo des am na ci la ñu envoyé nit ku envoyé la euro mu envoyé xaalis boobu noonu envoyé naa la ko gis nga numéro euro bi envoyé naa ko ak kii dollar. mais gars yi dañoo foogoon ne cinq cent vingt mille la kon kon affaire bi ay millions la. affaire million cinq cent vingt. leeral ko parce que journaliste yaa ngi fi di dagg waa site internet yi xam naa suba ñu dugal ko. merci voilà. siis man ko au policier bu monsieur Diop moo ko wax lépp ñu boole ma ak nit ma ban police la la la nekk Diop ban police la nekk. bu kii nu bu ginnaaw bu nekk Pikine boobu nekk a tant que géejawaay Pikine. boobu hmm. noonu mooy bu njëkk jot affaire yi. te ñoo ko gérer foofu noonu la police bi s'appelle monsieur Diop. yaa ngi dégg. Hmm. Hmm. waaw munoo joxe numéro am yow jox naa numéro munoo joxe. numéro non man joxewu ma numéro kenn sax man man dama la déglu rek. d'accord mm-hmm. voilà d'accord loolu sax bu ma ko waxee mu ko mu ne ma waroo ko ci wax waroo ci ay live abi nee nañ ma ne ko non je prends ma responsable dama ko xam dafa ma di jaay sama live ci ay mbéyte yoo xamante ne am xamatuma ko. Mm-hmm. sama maam dafa di yàlla nga xamante ne comme day muy dugal ay yu bëri Mouhamadou Issa yu bëri ay ponkal Sénégal mu leen di ñaan defal dafa ay liggéey daal leen moom taxoon. bu ñu defar envoyé te deux cent et quelques mille boobu Europe lañ ko envoyé direct ci wéef bi c'est pour que bu affaire bi noppi moom bu mu ci feeñ ci laa soog a yëg ni ki dese bi ci laa xam ne dese bi ñoom lañ ñu doon liggéeyloo debi la laa non ko mo am amna da ngeen koy fay conséquence ngeen ko fay motax tax Aïssa daw mais monako ñu ngi sen kan moy Aïssa Aïssa moy kan Aïssa. Aïssa moy ñaarelu bàcceeraas booy bàcceeraas bu ñu ko tak tak takk bu nekk gan ko moy Aïssa. Aïssa moy ñaarelu bàcceeraas bi tok te gan bi nekk gan bi waaw ñi naan ñe gelam la tak na ko takk ko Aïssa la tuddu ko moy jigen ko moy yow yow police Sénégal tuune wuñu ñàkkuñu fay bi nga xamante ni dossier bi la ñoom ñu classé ko rek def mandat de dépôt non non dafa am lu leen leer te xam nañ ko dañ koy teg seen man lay fekk deux semaines dinañ ko jàpp te gaa yi ñu bu jugé Nabou Leye mën na gën a ci lu muy gën a ci wér yaramam déglu ma basis dama ne dama bëgg nga jàpp mm-hmm. man lu ma la wax koy gis danga koy woote yaa ngi mm-hmm. ci mbirum wër gu muy jàppati pour gën mais man maa la maa la kat deux semaines ay seen nañ ko jàpp te dama dama xam lu leer su man damaa woote directement police expliqué leen cas bi woon leen transfert yi woon leen ko lu ma waxante ak ñoom. wax nga ko policier bi commissariat Pikine du wax nga ko Diop. carrément xamal ko xamoo wax ko ko wax ko ko carrément. mu mi la en rapport ak yor dossier bi dik merci waaw maa ko bañ ma boolee ponkal ma waxtaan ak expliqué ko kaa mu ne ma li nga wax ni benn ci say kenn moo ko wax lu méngoo loolu dèjà xam nañ bés bi la ma tegal leen lépp wan leen premier transfert deuxième transfert. am na benn gel bu nekk di wàcc laa di expliqué buñ doon expliqué dina daan maaraabu benn dëkk la daw na daf ko doon tëddee c'est pas vrai i jigéen la ba muy tëddee loolu. Aziz sa ñëw loon foofu mais kenn moo fi te tam bam la bu la buñ ko dimbalee mu ne dañ si oh. ay ak ñeneen. yaa ngi dëgg bu loolu amaatee ci laa ko preuve yi wan ko lépp ci appel expliqué xamal ne ko lii ak léegi mu ne ma évidemment li nga wax ni kenn ci seex kenn moo jéem a wax lii nii li nga wax kon loolu d'accord moo tax ñu boucler affaire bi teg parce que dafa am benn nit mu ñëw du mooy ay sa jigéen boobu quatre personnes dañ ñaari jigéen cinq góor dof bële bokkul mu loo ko ñu indi non ko kooku dañ ko mujjee boole. Hmm. Aïssa d'ici temps du ma la wax d'ici deux semaines dañ ko jàpp soog da mooy Aïssa gars yi buma ken dulo malen gëna rew man li tax ma tek bacc seras xaw ma ne woon sax ki day tuddu bacc seras man li tax ma tek bacc seras dama ko rom attaquer parce que dafa commencer genn di out buzz rakam bi di bandi lu nan ay ku laal doomu seras. seras lolo tax ma tek fi bacc pour wax ak mom ki li muy wax moko xam mom la concerné man waxuma mom mo nek di wax deglu len ko mom lu leer lay wax voilà bàyyi nit ñi di wax seen ñooñu ñi di wax man la ma lay wax déglu amul kenn ku am a liggéey euh, police amul kenn ku am fi du wax lii nu may wax ni man la pare lu leer dafa jaar ci man. Hmm. yaa ngi dëgg gis bu dese bi amee ba pare ay sànna bu ci la ñuy woote bu ñu wooyee ña xamal ne loolu sa kër pour leer moom xam am na ci la ñuy envoyé deuxième nit ku envoyé la euro mu envoyé xaalis boobu noonu envoyé naa la ko gis nga numéro euro bi yëpp envoyé naa la ko ak kii dollar. mais gars yi dañoo cinq cent vingt mille la kon kon affaire bi ay millions la. affaire yi million cinq cent vingt. leeral ko parce que journaliste yaa ngi fi di dagg waa site internet yi xam naa suba ñu dugal ko. merci voilà. siis man ko au policier bu monsieur Diop moo ko waxul lépp ñu boole ma ak nit ma expliqué ñu ne leeralal gars ban police la la la nekk Diop ban police la nekk. bu kii nu mu bu ginnaaw bu nekk Pikine boobu nekk en tant que mooy géejawaay bu njëkk a jot affaire yi. te ñoo

bu ñu defar envoyé te deux cent et quelques mille boobu Europe lañ ko envoyé direct ci wéef bi c'est pour que bu affaire bi noppi moom bu mu ci feeñ ci laa soog a yëg ki dese bi ci laa xam ne dese bi ñoom lañ ñu liggéey liggéeyloo dese bi la ci laa ne noonu comme mooy am na da ngeen koy fay conséquence da ngeen ko fay moo tax Aïssa daw mais ma ne ko ñu ngi seen. kan mooy Aïssa Aïssa mooy kan ba Aïssa mooy ba bàcceeraas booy bu ñu la ko takk takk bu nekk Gambie kooku mooy Aïssa. Aïssa mooy ñaareelu bàcceeraas bi toog. te gam bi ne gam bi waaw ñi naan ne gelam la takk ko takk ko Aïcha la tudd kooku mooy jigéen kooku police Sénégal tuune wuñu ñàkkuñu fayal bi nga xamante ni dossier bi la ñoom ñu classé ko rek def mandat dépôt non non dafa am lu leer te xam nañ ko dañ koy teg seen ma lay fekk deux semaines dinañ ko jàpp te gaal ñett bi siise Nabou Leye mën ci lu muy gën ci wér gu yaramam déglu ba basis dama ne dama bëgg nga ko mm-hmm. man lu ma la wax danga koy gis danga koy woote mm-hmm. yaa ngi ci mbirum wóor gu yaram muy jàppati pour mu gën mais man maa la maa la promet fekk ay semaines lañ ko jàpp te dama dama koy jàpp man damaa woote directement police expliqué leen cas bi woon leen transfert yi woon leen vocal yi bi commissariat Pikine wax nga ko Diop. carrément xamal ko xamoo ko wax ko ko ko carrément. léegi laajoo ko pour mu mi mettre la en rapport ak ki yor bi di. merci waaw. maa ko carrément mettre ma en rapport ku yoon ma boolee ponkal ma waxtaana mu expliquer ko kaa mu ne ma li nga wax ni benn ci say kenn moo ko wax lu méngoo loolu dèjà xam nañ bés bi lan la ma tegal leen lépp wan leen premier transfert deuxième transfert am na benn gel bu nekk di wàcc live di expliquer bu ñu doon expliquer dina daan maaraabu benn dëkk la daw na daf ko doon tëddee c'est pas vrai i jigéen la ba muy tëddee loolu Aziz sa ñëw loon foofu kenn moo fi tegoon tam bam la bu ko dimbalee mu ne dañ siy dimbale Aziz oh. ci Seyda ak ñeneen maa ngi dégg bu loolu amaatee ci laa la xam ne mën naa mel ni kon meurtre kon affaire bi six millions bu mag bi. six millions huit cent mooy xaalis moo tax ñu ay natt dina ay cinq cent xamuñu dara xamuñu sa lu xew xaalis bi yàgg na affaire bi trois semaines la def avant décès bi di am ci ay yóbbu pour ñaar nit dem. moom Aziz defar ci moom ak Waly nar a préparé dem na bu ko yëgee loolu mooy indi problème sax waaye daf ko am ay gunóor yu métti balaa dese bi am. Hmm. mais moom dese Aziz fekk ko ci sàmm. mais booy bi Waly bu mu ñëwee ñoom bu ko koy Aziz ci boppam du ay dañ koy ay jox ma na bu xamoon na lépp moo téye portable tijji woo booy bi ñu ñaan ay message message nga ko woo xamal ni ko diw dafa feebar dañ ko nar a yóbbu otaab pour nga ñëw feebaram bi attaqué na ko. booy bu mu ñëwee xamal ko ah lii yëfee léegi nag yow sa kii bi doo euh, ma sa kii bi lu ñu leen a ko defal lu mu tudd euh, tukki bi dañ koy continuer parce que daal lu ñu waroon na bu xamal leen carrément ni ki bi suñ ko éliminé wul day waxte forcément kenn mun ko wax ba dugg wax. waali. waaw moo indi waali bokkuloon ci programme comme que li gën a àdduna ci lañ ko soxla jamate. jamate wi ni la won gaay bu ndem ba tay ñetti jam abubu toj mo ray aziz dañoo wo sen seef bu ñu baña a xamal ko ah li di am na ñeg nii mu xamal len niki dañuy indi murloo boobu fekkeewul xamul sax muy naan dofu mu xamal mu len legi dañuy jamate dañu def jam yu bëri xotti seen biir kii nu mu tuddati babs xaar mo wax gaay du yene a ngi dégg bu baax dafa amna mu xamal len legi dinañu woo kan dinañu woo kan mooy ñooy bàcc. bàcc seeraas bàcc seeraas mi toog. ok bàcc muy toog bàcc ba dese bi mu amee la ci yëg mais bàcc yëgul sax affaire bi yëpp bu dese bi moo leen jox xalaat bi nga xamante ni xel bi nga xamante ni dañuy jamante gars yi def leen ba nga xamante ni léegi dañuy naan nit defu ko dof bi moom mun na ko def parce que dof loolu lool nit mënu ko def quoi rey yu métti yooyu ku bopp bi bi warul moo def loolu mooy indi motuloo boobu. loolu mo indi Modou Lo ñu wax mu ne mo moo rey maa jàppal nii mais mom fekkeewul fekkew sa ray na bu jek assis fekkew ko mais bu boy bi ñu ray boy bi ko yon ci sàmbal way waali ñoom bu ñu la ba pare ci na jamatu yu bari yoy am ak xotti seen biir affaire yoy pour ñi nan ko warul moko mm-hmm. def mais ki bi na nabu ci ki bi la fanal fajar bu ok mayma mayma ki di bind nan juge man dama dalal xaalis bi ñu séddaale ko fa jël nañ xaalis bi recevoir nañ xaalis xaalis bi ay cinq cent mille yu gars yi foofu ay trente mille ci wéb noonu c'était six millions yi